mbokk internet Dakar TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal la jàmm bokk na ci lu gën a fës ci xibaar yi ab cagnotte bu këru yéenekaay bi di walfa ji lancé woon na démb ginnaaw bu ñu leen daggale seen signal boobule nga xam ne dina leen yóbbee ñu toog benn weer boo xam ne duñu mën a wéyal seeni programme ci noonee nag la yëf yi jàllaaño nit ñi di cotiser di dugal njëgu 1000 francs ci biir cagnotte boobule ba waral sax ñu amoon 20 millions yu tekk waaye nag ngir xamle ci biir seen page Facebook boobule nguur gi daal di nay bloqué seen compte boobule nga xam ne fala lépp war a jaar muy fondation wal fajri ba mel ni sax ñu koy ñaawlu ndax li ñu xamle mooy nguur gi loolu da leen déranger waaye bu dee rek ñu ngay dund waaye daa mel ni yàlla buy yàq day defar ndax Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides may na leen tey jile juróomi million bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu joxe nag jiitalu wal fajri di Niass moo àndoon ak délégation wam daal di koy seeti ca Touba ci biir délégation bi mën nañ cee lim Moustapha Diop oustaz Assane Diouf oustaz Khady Niass Mouhamadou Biteye Amadou Fati Faye Moustapha Niass di doom ci Sidi Lamine Niass Abdallah Niass itam noonu responsable commercial Walf Mbacke di maamu Diop ak correspondant bi di Mamadou Matar Sarr ak yeneeni këru yéene kaay yi ci kilifa gi nag lañuy ñuy desandi ba tey waaye bi la yoon ci politique la ñuy wax sëñ Mountakha jël na ab ndogal ngir dakkal lépp lu soxal politique ci biir dëkk bu sell bi di Touba góor gi ci daaru Minam daa dinay digle ñu toxal lépp luy bureau de vote feneen fu dul ci dëkk bi di Touba xalif général des Mourides nee na na Baay Faal yépp jëfee li ni mel ngir mën a sàmm dëkk bi di Touba ñi nga xam ne ñoo bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom la sant ñu jëmmat li ni mel ndax sëriñ bi daa dinay ñaawlu yooyu activité politique ñuy amal ca dëkk bu sell bi di Touba.